non mais ñi baaxuñu ñi baaxuñu. non xaaral bi day dañ na nga ko dindi si kii bi day dañ. Ah, hmm? xar mi dafa am góom. ci biir bi ngandam góom ñu dem jënd ji ko àll ba ci pël yi gis nga ndekete dañoo ut xar mu dee rek xam na waaw lelli der bi daal di koy lelli daal di koy teg fi góom bi nekk taf ko tey la ñuy soog a remarqué ne xar mi góom bi dañ koo taf gis nga gars yi baaxuñu li rafetul sax. matul matul tabaski bi ko jaay doomu aadama xuur bi xool xuur ko jaay kenn même même xuur bi déjà dañ ko taf quoi. xam nga kenn mënu perte rek mais lii moom rafetul ah. pour di jël di ko jaay. rawatina yi nga xam ne yooyu jënd xar yow ngeen bàyyi xel bu baax